yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. faatoo ko moom mooy góor day takk soxna. day takk soxna ci tollee. Mm-hmm. waaw góor gu toll ci takk jabar. Mm-hmm. ba noppi takkoo ko foofu la insécurité yam. fa la insécurité takku ndomba ngir mucc takk jabar ndax mucc ko gën. waaw maa la ko wax. Mm-hmm. gis nga yorub appartement. waaw yorub wifi. yorub écran plan. Mhm. gaa ñi di ñëw di la fréquenter. waaw te amoo soxna. Mhm. ku ko def boo ci muccee tey doo ci mucc suba. Mhm. wallaay parce que ñi lay fréquenter. waaw ñi ca ëpp ñàkk kilifaa tax ñuy fréquenter ñi lay fréquenter. danañ indaale dorog danañ indaale yàmba bu teyee ñu indaale la kaso wala ñu indaale la dee. dégg nga. te nag ku dul wuute doo wute dara. waaw waaye boo yoree soxna. ku ne fajar teel nañ dem kër diw ñu ne soxna saa ngay doo ko jóg bul dem mhm. bu digg bëccëgee ñu ne nañ dem ci appartement ba ñu ne déet jigéen jabar waaja xëy na te jabar ja la fa bàyyi jërut dem mhm. bu xaaji guddee buñ neen nañ fa dem ñu ne ku yor jabar kenn du ko seeti nëgëni waaw kon lu gaa yi def doo doo ko fekke te ku fekkewut da ngay mucc waaw dëgg la dégg nga mhm. waaye yor sa poos dara yor sa bii fi maanaam toog nit ñi di ñëw di ferekante di ferekante fii rek lay mujj il faut nit ñi di am soxna ngir mën a mucc ngir mën a mucc dégg parce que soxna si boo koy doo ko yor daañu na la day tàqale sa xarit yeeg amatoo liberté ak da nga koo ragal ak. Mhm. dégg day dàq saw nit ak. lépp waaye dana la garanti. ba lu bëri lu war a yegsi ci yow du yegsi. Mhm. dëgg la dégg nga te it boo amee soxna da ngay ami doom après boo amee doom sa reeru doom nga occupé wu di jëli doom yu jàngeek di yóbbu ñuy jàngeek di lijjanti ko am bag ko amul bag. Mhm. noonu ngay def di lijjanti say doom moo gën nga toog ba sa yaay ma a juróom toog la lijjanti waat. <laughs> dëgg la ci bëree bari rek ñàkk kilifa la ak ñàkk ñàkk <laughs> ab xarit nag uh-huh. dañoo wax ni góor goo xam ne mu ngi ci bâtiment mm. lépp luy wét maanaam wéet ci kër te mm. lépp luy wéttali nit mu defi pexe ba mu ba mu fekk ko fa te defuti pexe ba wéttali koo jigéen mëtt xaritool mëtt xaritool waaw waaye jigéen joo xam ne maanaam lépp loo xamante ne maanaam maanaam euh, nit da ko war a am fexe na ba am ko te nanguwut am jëkkër mm. moom it mëtt xaritool waaw. dégg nga ñaar ñu warut ànd nag. waaw bu nu àndeet fu nu mujj la ñuy mujj. waaw ah, dëgg la waaw. waxuma ñi dem nag. waaye ñiy dund tax may wax. Mhm. góor daal lay takk jabar. dëgg la bu wat bu ca waree takk nekk ak moom jabar ji occupé ko. Mhm. dama lay wax ne lépp lu bon ci àdduna. luy dal nit liberté ca gën a bon. liberté mooy noonu doomu adama mhm. gis nga kilo boo jël. teg ko fu am libre fu libre bu yàggee mu doonub libre. dëgg la waaw jëlal kilo bu daqaar teg ko fee mu liibar ak gars yi rek nga xool. Mhm. daañ ko coppati ba mu desub liibar. kilo buy kilo solom kilo ñam bi loo jël teg ko nee bàyyee ko gaañ mu liibar kenn teg kenn denc ko fenn. <laughs> liberté ak yële liibar kilo ci kilo andi ko ba liibar. waaw moo tax nan bàyyi liberté bi. tey wute te takk soxna ne ca mu occupé ñu waaw.